أيسمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي بكي تالبي بكي جلدي bokk yi bokki taalibe yi bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar ci tereftal uh, sunu uh, bu rëy wi tereftal te mag lool ci nun cant gi nag. borom liggéey bi rek lañ ciy jiital. kon liggéey bi rek lañ ciy jiital. borom liggéey bi borom liggéey bi rek lañ ciy jiital. moom bis bi dafa wax ne bis bis la boo xam ne bisu sant dañu cee digal ñu sant la ko ci boromam. bis bi dañu cee digal ñu sant la ko ci boromam. waaye moom nag boo ko gisee bala ñu ko bala ñu ko koo sant dañ koy sant ba noppi. nee na moom ni mu ko gisee ñun bala ñu koo santale dañ koy sant moom ba noppi. dañ koy sant diggam ak boromam. dañ koy sant digganteem ak boromam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sant ko diggam gaay yàlla yi gaay gaay yàlla yi ci kaw. sant ko digganteem ak gaay yàlla yi ci kaw. sant ko diggam ak gaay yàlla yi ci suuf. sant ko digganteem ak gaay yàlla yi ci suuf. di ko sant jëmmi boppam di ko sant ci jëmmi boppam ji. yan bu bi mu yan diggante ak màggal ko. yan bu rëy bi mu yoroon diggante ak mooy màggal ko. fa ko àggalee ni joti ñu ñu bari jotiwuñ fa. fa ñu bari jotiwuñ fa. ñu ñu ci ñu néew ci joti. ñu néew ci joti. buñ ko santee ba noppi nag. buñ ko santee ba noppi nag. door a jëm nag ci santale ko. door jëm nag ci santale ko. sant le gi sant le ko dafa am waajtaay. sant le ak sant ko nag dafa am waajtaay. dafa aajo dafa aajo teewlu teewlu teewlu jëmmam ji ci sunu xol yi dafa aajo ñu teewlu jëmmam ji ci sunu xol yi ak sunu suñu xel yi. daf ko laaj. daf ko laaj. buñ ko defé buñ ko defé danañ won gannaaw lepp lu dul moom. danañ woon gannaaw lepp lu dul moom. ci lo xamne ne danañ soxal. ci lo xamne ne danañ soxal.

muy moom rek muy sunu yitte. moom rek nekk sunu yitte. ndax mën nu ko fayee amul amul luñ ko mën a fayee. noonu nag amul luñ ko mën a fayee. loolu jox ko sunu lépp rek. loolu jox ko sunu lépp rek. nekkal ko nag. nekkal ko nag. ni mu ko bëggee ci nun ni mu ko bëggee ci nun nu nekkal yàlla rek nu nekkal yàlla rek. ndax buñ buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. ndax buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. noonu la ko sunu borom bëggee ci nun noonu la ko sunu borom bëggee ci nun bu nu teewloo nag ci loolu ba noppi. bu nu teewloo ci loolu ba noppi. delloo ko suñu lépp. delloo ko suñu lépp. nu door a nag. nu door a dellusi nag. àndaat suñu sago. àndaat ak suñu sago. fas yéene koo santale nag. façon fas yéene koo santale nag. ci bis bii hmm. ci bis bii. kon man noonu rek laa ko gisee. kon man noonu rek laa ko gisee. kon santale ko suñu lépp nag. kon comme sant santaliku ci kon kon santaliku ci suñu lépp nag. mooy loolu rek nu nu delloo ko suñu lépp. mooy nu delloo ko suñu lépp. suñuy xel ak suñuy xol. suñuy xel ak suñuy xol. ak suñuy jëf. ak suñuy jëf. xam ci ci ci ci ci ci ci jàng alxuraan. tàmbalee ci jàng alxuraan. jàngal ko xasaayidam itam jàngal ko xasaayidam yii. nga xam ne diggante boromam rek. ak diggante yonent bi diggante borom rek ca nekk ak diggante borom yonent bi. ak deeyaaleem ak rek la. ak deeyaaleem rek la. ñu nekkal ko ci bis boobu. ñu waaj suñu bopp teewlu. ñu nekkal ko ci bis boobu waajal ko suñu bopp te teewlu. waaw teewlu. fonk fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk ko bu baax yi ñuy jàng fonk jàng yi ñuy jàng xasaayid yi. loolu lépp ñu am ci pësteef. loolu lépp ñu am ci pësteef. di ko di ko sa di ko sàkkoo ngërëmam. di ko sàkkoo ngërëmam rek. ci. gannaaw jàng yi jàng alxuraan gannaaw jàng xasida gannaaw jàng alxuraan jàng xasida ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm nanu nanu gën a gën a tàggat suñu bopp nanu gën a tàggat suñu bopp gën a torox lu jëm jëm ci jëm gën a torox lu jëm ci sant ko jëm ci sant ko jëm ci santale ko jëm ci santale ko kon bu nu bu bu bu nu ci sunuy xel ak sunuy xol ak sunuy jëf kon bu ñu teewloo ci suñuy xel ak suñuy jë ak suñuy yëpp. suñu wërsëg mi ngi ci biir loolu. suñu wërsëg wépp nag a ngi ci biir loolu. lépp nag ñu delloo ko ko. lépp nag ñu delloo ko ko. ci ci ci xeeti ci xeeti xeeti jëf yu baax. ci xeeti ci xeeti jëf yu baax yu mën a doon nag rek. moo xam ci wërsëg la jóge moo xam ci wërsëg la jóge moo xam ci leneen lu mën a jóge rek moo xam ci leneen lu mën a jóge rek lu baax rek la loo xam ne lu baax rek la loolu lépp ñu boole ko loolu lépp ñu boole ko jëfandikoo ko jëfandikoo ko jébbal ko ko jébbal ko ko santale ko ko santale ko ko diggante ak boromam loolu mooy li ci jiitu loolu mooy li ci jiitu moo ci am solo looy loolu mooy li ci am solo nu suñu borom gën a gën a gàttandoog tawféexam yàlla na nu suñu borom gën a gën a noo gàttandoog tawféexam ba nin ko nin nin ko nin ko nin ko war a santalee nu nu nu nu nu xamee ko ni mane ko ni nu ndax niñ ko war a santalee ñu xamee ko ni manee ko ni jëf jëfee ko ni jëfee ko ni jëf ju sell jëf ju sell yàlla na nu ko suñu borom yàlla yàlla na nu ko suñu borom defal may nu kattan gun ko gun ko gun ko gun ko mën a santalee. may nu kattan gun ko mën a santalee. ci suñ lépp ci suñ lépp. kon jërë ngeen jëf. kon ñu ngi leen sant mi ngi leen sant jërë ngeen jëf. noonu rek la. noonu rek la bokk yi yi. bokk yi bokki taalibe yi bokki taalibe yi bokki jullit yi bokki jullit yi. kon bis bis baa ngi ñëw. kon bis baa ngi ñëw. nan ko waajal bu baax nan ko waajal bu baax. ni mu ko bëgge ni ko bëggee. sunu kem kattan sunu kem kattan. nu jéem ko. nu jéem ko. lu ci man lu nu ci man lu ci nu def ko. nu def ko lu nu ci mënut. lu nu ci mënut. nu yéene ko. yéene ko fas fas ko. fas ko. jéem ko jéem ko. sunu kem kattan sunu kem kattan. waaw loolu loolu loolu rek la demee loolu mooy mooy àq bis bi ñu jëm. loolu mooy àq bii ñu jëm. mooy sunu bis boo xam ne euh, bis la boo xam ne. bis la boo xam ne. Euh, li ci nekk ci ci ci jiw yow jiw yow. ci mën nu ko wax ci suñuy làmmiñ mënuñu ko xalaat ci suñuy suñu suñuy li nekk ci njëriñ ci bis boobu yi di ñëw mm-hmm. nu ko xalaat ci suñuy xel nu ko wax ci suñuy làmmiñ mënuñu koo xiyaas itam loolu rek la xanaa dañ koy dañ dañ dañ dañ koy sante suñu borom rek dañ koy sante suñu borom rek sëñ bi moom dañ koy sante suñu borom sëñ bi dañ koy sante suñu borom rek mi nu booleeg moom moom mi nu booleeg moom waaye waaye waaye du loo xam ne lu lu lu lu lu lu lu nu mën la. du du loo xam ne nag lu nu mën la. dañ koy bëgg ka jéem rek. dañ koy bëgg ka jéem rek. loolu noonu rek la demee. noonu rek la demee. kon nag euh, noo ngi sant. kon nag noo ngi sant. Euh, bokk yëpp. bokk ñoo ngi sant bokk yëpp. bokk bokk bokk bokk bokk yi. bokk yi. ñoo euh, ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen di sant bu baax. loolu nag sama sama wàllu bopp la. loolu nee na loolu moom cant googu wàllu boppam la. dama am cant gu rëy sama digganteeg bokk yi. ne damaa am cant gu rëy sama diggante ak bopp yi. ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma seqal sëriñ bi. ñi ma seqal sëriñ bi. ñooñu ñoo ci jiitu. ñooñu ñoo ci jiitu. ak ñi ak ñi ñu ko bokkal ñëpp. ak ñi ñu ko bokkal ñëpp nag. dama am cant gu rëy goo xam ne mun mun mun xaw ma nu ma koy sante. danaa am cant goo xamante ne xaw ma nu ma koy sante. sama diggante ak ñoom sama diggante ak ñoom. waxuñu ma waxuma sax ñu jàppale ma. waxuma sax ñu jàppale ma. waaye dañ maa soññu. dañ maa soññu. dañ maa dimbali. dañ maa dimbali. dañ maa sagal dañ maa sagal mënuma ko lim. mënuma koo lim. sama diggante ñoom sama diggante ak ñoom. liñ ci jëf liñ ci jëf. Euh, mënuma ko lim. mënuma koo lim. kon kon. mboolem bokki taalibe yi. mboolem bokki taalibe yi. mboolem bokki yi. mboolem bokki jullit yi. nañu xam ne. nañu xam ne. sama bokki bopp yi sama bokki bopp yi naa leen gërëm sant naa leen gërëm naa ñoo ko jë ñoo ko jëf. te ñoo ko jëf. ñoo sama diggante ak ñoom. ñoo ko jëf sama diggante ñoom. di sant nag. di sant nag. bokki taalibe yëpp bokki taalibe yëpp ndax lenn lenn la ñun ñëpp. ndax lenn lañ ñun ñëpp. ñi ñuy tudd di tudd sëñ bi. ñi ñuy tudd di tudd sëñ bi. ak ak ak ak ak ak taalib yi. ak taalib yi ak taalib yi sëriñ bi. ñun ñëpp. ñun ñëpp. lenn rek lañu. lenn rek lañu noo bokk lépp. noo bokk lépp. noo noo noo noo ànd lépp. noo ànd lépp. ñooñu itam. ñooñu itam. Eh, maa ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm. sant gu rëy a rëy cant gu rëy a rëy ndax ndax ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom sama bokki taalibe ndax ñoom sama bokki taalibe ci ñaari anam laa ci taxawe ñaari anam laa taxawee ci sama bokk taalibe bi sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñi ma ñii tudd sëriñ bi sama bokk yi ñi ñii tudd di tudd sëriñ bi sama bokk yi ñaari taxawee laa ñaari ñaari ñaari anam laa ñaari anam laa ci am sama digganteeg sama bokk yi ñi ma bokkal sëriñ bi sama bokk sama digganteeg sama bokk yi ma bokkal sëriñ bi ñoom sama ñi nga xam ne xaddam laa ñoom ñi nga xam ne xaddam laa doon doon ci ñoom ak ñi nga xam ne mbokkum mbokkum mbokkum taalibe laa doon ci ak ñi nga xam ne mbokkum taalibe laa doon ci ñoom na ngeen na maa ngi leen di seeral rek sama nañu xam waxtu wu ne noo gu ma maa ngi ci leen di seeral ne maa ngi gën a yees sama jaayanteeg sama sama jaayanteeg sëriñ bi di leen di di gën a yees feddali sama laxasaay gi ma fas laxasaayoo fas yéene liggéey sëriñ bi lépp nag ma ànd ñoom te lépp itam lu ma ci wut ñoom laa ciy jiital ci sama bopp maa ngi fas yéene nokki gu ma nokki maa ngi koy fas yéene jaayante koog jaayante koog sama sama digganteeg sëriñ bi ak sama digganteeg ñoom ak lu ma mën ci àdduna lu mu mën a doon rek ma ànd ba fas yéene koo ànd ak ñoom rek ba faw loolu loolu mooy mooy mooy sama cant ak ñoom mënu ma ko wax sax. loolu mënu ma ko wax sax ndax mënu ma ko wax sax sama lamiñ. noonu la loolu laa ko noonu laa ko a firndeelee. waaye noonu yi rek laa ko mën a firndeelee. Euh, dellu si nag. dellu si nag. ci euh, cantuk boppam. cantuk boppam. muy sembu rëy wii nu nu sembal sëriñ bi. muy sembu rëy wii sembal sëriñ bi. te te te te te te te mu bokkoon ca eh, la la la la la ministre la mébétaloon boppam la ministre boppam. mu bokk ci la nga xam ne moom la nisaraloon boppam. xaw ma sax nu ñu koy waxee waaye moom lu lu lu lu mu faggaloon boppam la. ba noppi xaw koy waxee waaye lu mu faggaloon boppam ba noppi loolu moom danoo am tawféex képp. loolu moom danoo am tawféex. dong yem ca yem ca. nekkal ko ci nekkal ko ci. Eh, muy. liggéey bu bi muy daara ji muy liggéey bu rëy bii di daara ji di université bi. liggéey liggéey boobu. liggéey boobu. doy na waar lool ci man. nee na liggéey boobu doy na waar lool ci man. xalaat ji moom mënu ma ko ñàkk xalaat. xalaat ji moom mënu ma ko ñàkk xalaat. waaw da da da fas yéene ko rek. fasiyene fasiyene ci fasiyene ci liggéey sëriñ bi fasiyene ci liggéey sëriñ bi waaye nag waaye nag fi ni ni ñu ko andee ak man ni ñu ko andee ak man muy bokki sama bokki bopp yi muy sama bokki bopp yi bokki talibé yi ak bokki talibé yi ni ñu ko andee ak man ni ñu ko andee ak man lu lu lu lu lu bettuma sax ndax sax xam seen diggante ak sëriñ bi bettuma sax nag ndax xam seen diggante ñoom ak sëriñ bi waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe sama njort waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe nag sama njort loo xam ne eh, rëy na ci man lool loo xam ne rëy na ci man lool mënuma koo xam nu ma nu ma leen di sante mënuma ko xam nu ma leen di sante te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci maase te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci maase ñëpp ci maase ànd ànd koog man ñëpp ci maase ànd koog man eh, eh, jiitu leen ci luy dee ne dee ci nee na jiituwuma leen ci lu day nit liy dee ci be. noo bokk yéene ji. noo bokk yéene ji bokk xalaat bi. bokk xalaat bi bokk pësteef bi bokk pësteef bi. bokk jublu gi bokk jublu gi. bokk jëf ji bokk jëf ji. bokk bokk liggéey bi. bokk liggéey bi. kon ñooñu nañu xam ne. maa ngi amel naa cant gu rëy rëy rëy. ñooñu nañ xam ne amel naa leen cant gu rëy rëy rëy. xam ne dama ko dama dama dama dama dama damay ànd ak moom ba ci kanam liggéey bi. damay ànd ak ñoom ba ci kanam borom liggéey bi. ma ma ma ma ma ma sant leen fi kanamam. ma sant leen fa kanamam. loolu mooy lay lay lay lay sedd sama xol. loolu yi mooy sedd sama xol. foofu rek laa ko jëmee foofu rek it laa ko jëmee. kon jërë ngeen jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax yéen mbokk yi ak talib yi. Euh, di gën a santaat na geneen sant geneen sant bu ci dolli. di gën a santaat geneen cant nag goo xam ne moo ci dolli ko. ndax euh, jamono jii nu weesu. ndax jamono jii nu weesu. xat na lool. xat na lool xatoon na lool. xatoon na lool. waaye. tawféex sëriñ bi rek. waaye tawféex sëriñ bi rek. moo moo nekk ci suñu kanam. moo nekk ci suñu kanam. ñun xamuñu dara. ñun xamuñu dara. doonul dara doonul dara. doonul dara mënuñu dara mënuñu dara. tawféex sëriñ bi rek mooy la ñuy xool. tawféex sëriñ bi rek moom la ñuy xool. bu bu nu sëggee rek mu won nu fan. bu nu sëggee rek mu won nu. loolu rek moo ci am fan jëm. loolu rek moo ci am. loolu rek moo ci am. Ah, ah, xew-xew bi amuñu ci woon benn benn tiitaange. nee na mosuñu ci am benn tiitaange ci xew-xew bi. ndax ni ma ko daal leerale rek nun nun yaar rek yaar rek moo moo nekk moo moo moo moo moo nekk ci suñu ndax yaar rek moo nekk ci suñu wet. yaar yaar yi rek mooy moom moom la ñuy moom moom moom la ñuy yaar yi rek moom la ñuy jëfandikoo. mooy mooy mooy wéetal yàlla. mooy wéetal yàlla. yàlla mooy def mooy dindi. moo yàlla mooy def mooy dindi. danoo am yàqin ju mat sëkk ci ne yàlla dong ngay def moom rek ay dindi. doyloo sëriñ bi itam diggam ak boromam. doyloo nag sëriñ bi nag diggante ak boromam. ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun fàggul nanu ko fàggul nanu ko lu mat a ñaan lu mat a ñaan ñaanal nanu ko ñaanal nanu ko te jiwoo na ci ak te jiwoo na ci ak boromam kon kon yàlla nag yàlla nag moo xam li muy def moo xam li muy def soppiku jamono mosu fee jóg soppiku jamono nag mu mosu fee jóg diggaale mag jaam ñi mosu fee jóg diggaale mag jaam yi mosu fee jóg te du fi jóg mukk nag loolu mooy mooy xew-xew bu yees loolu mooy xew-xew bu yees bii loolu dong la loolu dong la waaye nag waaye nag amuñu ci lenn lu ñuy lu ñuy jaaxal nee na nag dara amu ci amuñu ci lu ñu ciy jaaxal lenn lu ñuy sikki sàkk wala lenn lu ñuy sikki sàkk musta am musta am ci biir loolu nag ci biir loolu ma am ma ma ma ma ma ma ma ma ma am ma am cant gu rëy nag. mu ci biir loolu nag ma am cant gu rëy. ci ñi ñi ñi ñi ñi ko bokkal. ñi ko bokkal. ndax diine jee fi nekk. ndax diine jee fi nekk. adduna ji ak adduna ji. am na ñum dénk diine ji. am na ñum dénk diine ji. am na ñum dénk adduna ji. am na ñum dénk adduna ji. nu bokk nu bokk jamono. nu bokk benn jamono nag. bokk lépp nag bokk lépp nag. waaw nu xaw a waree. waaye nu xaw a aw doxin. aw waree aw doxin. waaw ñoom itam. ñoom itam. ci eh, eh, seen liggéey rek lañ nekk. ñoom nag ci seen liggéey rek lañ nekk ñoom waa adduna yi. ndax la la ñu xam. ndax la xam. borom xam-xam yi saahir yi. borom xam-xam saahir yi. la ñu xam. la ñu xam moom la ñuy jëfandikoo. moom la ñuy jëfandikoo. Oh, loo loolee nag. loolee nag. ma sant am ci cant lool. ma am ci cant lool. waaw ndax eh, ndax. di di président président Macky mi fi nekk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 la ci la ci jub ndax liggéey Sëñ Tuubaa rek te te te day wéy di wéy te loolu day wéy di wéy buñ ko yemale fenn incha allah duñu duñu xañ dara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 nag nan ko xamee noonu loolu foo ci laa fi nekk nee foofu la nekk te ko sama bokki taalibe yi yëpp te yéen nag ko sama bokki taalibe yi yëpp waaw lañ cey jëf jërë eh, xam ne daal sant naa naa waaye daal na ñëpp xam ne daal sant naa gërëm naa sama xol sedd na guy mel ne sama aajo na ba noppi sama aajo faju na ba noppi waaw fi lu ma fi dese it lu ma fi dese lu ma fi dara lu fas yéene sax lëggeel Sëñ Tuubaa rek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 te sëriñ bi ñëwut bor dafa am pay kon ni ko sëriñ bi santaane rek na ko bokk yëpp xamee noonu ni ko sëriñ bi waxee itam njàngu alxuraan bi itam niñ ko ni ko kilifaam yi jëkk daa diglee mi ngi koy fàttali ñëpp na ko santane tàmbale santaane ko sax waaye neen mi ngi koy yeesalaat ginnaaw weeru tàbbi na ba bañ a àgg ci bis ko daa santaane yëpp mi ngi leen fàttali di fàttali itam xasaayid yi nga xam ne sëriñ bi yoo ko def te sëriñ bi leeral lépp daa déyaale loolu itam sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokk taalib yëpp ak lépp loo xam ne nit mën na ko ci lu baax na ko Cheikh Mahamadou Farid daa waxee nañ nañ ko màggal ci lépp loo xam ne ak jaamu yàlla ak lu baax kon nag sëriñ bi nee na mi ngi soñ bokk jullit yëpp di soññ bokk taalib yëpp ci bis bi nga xam ne amul lu moom muy bisu sëriñ Tuubaa bi bu loolu jàllee itam nag mi ngi soññ bokk taalib yëpp ci ni mu ko waxee nga xam ne ñëpp xam ne ne day iteem muy daaree Cheikhul Khadim ji nga xam ne mënees naa wax ne naa li fi Serigne Touba bàyyoon moo fi des yàlla def itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke naaloon ko Serigne Saliou Mbacke ñëwoon mottali ko bu ubbi daaree alxuraan ji bi yàlla defee nag kilifaam yi ko fi wuutu di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Moussa ku ci ne amoon yéene moom bi mu agsee nag waxtaan wu mu njëkk a wax ñëpp dégg nañ ko mooy. musuma am benn xalaat wala jënd yitte lu may daari Sëriñ Tuubaa ji kon nag Sëriñ Tuubaa da ko cee liggéeyloo liggéey bi it feeñ na ndax ba mu ko tàmbalee ba nëgë ni sant na bokk julli di sant bokk teel bi ndax wane nañ ci yitte wane ci taxawaay wane ci positif kon da leen sant ci li weesu lépp ngir xam ne la Sëriñ Saliou Mbacké daa wax ne joxe bi dafa jiitu laaj bi kon moo tax soññut sax di leen soññ ndax xam nañ ne def ngeen li man ak li ngeen mënut te ko dem ci liggéey bi it da xam ne ñëpp wane nañ ci seen yitte wane ci seen taxawaay wane ci seen positif waaye nag yéene gim leen ko yéene ndax xam ne ni ko waxee rek lépp lu baax rek yéen la ko gën a yéene ci jëmmam moo tax bu soñoon kenn ku ci ne lu ci waay defoon rek na xam ne day door tàmbaliwaat ndax ndigalu Serigne Touba kat lu mujj rek mooy ndigal la te lii nag moo fi mujjoon ci ndigalu Serigne bi kon Serigne bi nee na xam na ne. li ngeen man ak li ngeen mën lépp def ngeen ko kon sant na bu baax waaye ki ngeen di jëfal teg na ci bëtam kon nag li ci kanam mi ngi soññaan ñëpp ku ci jëfoon nag na nga na na nga xam ne yaa ngi door mel ne ku door a tàmbaliwaat te xam ne lu njëkk la suñ borom daal la ko fay suñ tubaab daal la ko fay waaye li ci kanam itam lu ci waaye defoon rek na ci defaat lu ngir xam ne liggéey bi liggéey bu yaatu la boo xam ne ni mu ko waxee rek yëmul fenn te keroog ba muy tax xeer wa ci loxoom yu teddee dafa waxoon ne. liggéey bu mu laal suuf kon loolu nañ xam ne amaanatul ci yoon wépp nañ xam ne liggéey bi kon bu mu laal suuf mel na nit ñëpp dégg nañ ko noonu waaye kon nag ñi ngi soññaan ñëpp ngir xam ne jëf ci moom la sëriñ bi waxoon rek bokk na ci njëriñi addiya addiya dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara dana fekk fu dara nekk mu baril ko waaye dana fekk fu lu bari nekk mu barkeel ko kon sëriñ bi ne mi ngi soññ ñëpp ci bis bii nga xam ne ci lañ jublu si di ñaan ñu àgg ca te dugg ci bismillahi rahmaani rahim day ceeg tawféex day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أيسمني الله عند جاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري